94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ki toppal 94 Walf Sénégal seen analise chronique yoo xam ne leen koy defal saa nekk réew mi ak bitum réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen way leen di toppal 94 Walf Sénégal cey sénégalais maa leen yërëm ndeysaan chaque jour rek bés bu yàlla sàkk rek ñu tegal leen coow maa ngi leen di fàttali anecdote maanaam Congo seen pétrole bu bari ba ak seen or ba ak seen jamaa ba heure ba nga xamee ne bëgg nañ ci tibb xamul nuñ ciy tibbee ndax jàpp nañ buñ ci tibbee te dara xewul dañuy feeñ te bu boobaa duñu mën a rawale lañ bëgg a rawale tubaab yi nan lañ def doonoo dem jëli ji Mouhamed Ndao Tyson boxeur boole ko seen benn champion boo xam foofu noonu mu leer ne kon coow loolu la gaa yi di gën di topp boo ko defee li ñu bëgg a def danañ ko def foofu ca Congo africaine africain yi africain yi kenn xamut kañ la ñuy yeewu ci àdduna bi kenn xamut kañ la ñuy yeewu ay waay kañ la ñuy yeewu sunu pétrole gaz zircon lépp ngeen naan da ngeen def Mumbai dem ci stade ba dajaloo fa di coow ci ay làmba yu kenn xamut te amaluñu benn njariñ benn njariñ làmba ju amaluñu ko parce que li tax loolu mooy ñaari mbër yi nga xam ni ñoo dun bëre ñoom ñoo ciy bénéfice woo voilà danañ ci bénéfice woo ñoom. lamb bala moo am njëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg ñi ci nekk taxawal ay entreprise yu mag fii xale yi di ci liggéey tant que loolu amagul rek làmb amagul njariñ ñaar ñi ci ñaar ñi ci sëgg képp ñoo moom ñoom ñaar kose kot ñoom la amal njariñ ndax danañ ci tabax seen i gàlle danañ ci dundu dund gu feex fuñ ci fuñ bëgg a dem danañ fa dem mais ñi topp ci seen ginnaaw ci mbooloo ci ay jeune ci ndaw kenn xamul nu mu toll te ñooñu xamuñu fun jëm voilà bu fekkoon tey ñoom dañoo créer seeni i employé teg seeni i entreprise xale yi di ci liggéey ñu continuer seen làmb dina safe dina neex lool waaye nag sénégalais yi xam nga ban siècle la ñuy yeewu eggagun ca eggagun ca ba ñuy yeewu siècle ba nga xam ne dañ naan jar xam bu baax a baax a baax a baax liñ bëgg ak liñ bëggut bu boobaa rek fo mi ñi fo dina neex ndax day fekk booba ñëpp yeewu nañ kenn ku ci nekk yaa ngi gis sa bopp bu baax a baax ci lii nga xam ne ni moo di réew mi mais réew moo xam tey ji am na ci ñoo xam tey dem na stade liñ waroon a ndekkee sax boo demee moom lañ daggee billet liñ waroon a reere moom lañ daggee billet liñ waroon a moom lañ daggee billet ndax ku nekk xam ne ndakaaru njaay boo añee ñaare ñi nga xam ne ni seen poos jotul seen ginnaaw déggal seen loxo jotul seen ginnaaw yaakaar naa bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree du ñu ndekk voilà làmb ji jàll na ay problème moo ciy tegu ndax yaa ngi xalaat suba fan ngay jëlee loo ndekkee wala loo reere voilà sport bala na ko mën a def dëgg-dëgg day fekk sunu réew mii macha allah kenn ku ci nekk di yëg sa bopp bu baax a baax a baax ci réew mi voilà mais def ndiiraan mbumbaay coow lu bari ñu war a calculer adduna bi jëm ci ban xam-xam la ñu war a tënku matière yi fi adduna bi jëm technologie application développement yi. loolu yëpp ndaw ñi war xalaat seen àdduna seenu dundu nan lay sottee ëllëg mais mbër yi nii seen i seenu dund sotti na de parce que ñoom ñëpp ay kase yu am doole bu ñu leen daaneek bu ñu leen daanu yëpp seen yoon nekku ci yor ay kase am nañ ay publicité yooyu yëpp day def te yéen ñi nga xam ne yéen a seen ginnaaw ñoom ñu war leen a jàppale defar seen entreprise ngir ñu continuer seen lit mais duñ ko def dañ leen di bàyyi rek ci ci lëndam gi voilà moo tax aywa bu dee football xam nañ ne sax football moom macha allah parce que football compétition boo jël indi ko ci réew mi voilà réew mi danañ ko jëriñoo parce que loolu am nation la mais lii dama yërëm sénégal yi rawatina nag ñi nga xam ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ciy gën a sonn après làmb ji bu jeexee ñooy xulo ñooy xeex ñooy saagante attan nañ seex rayante attan nañ see sax rayante te moo ne amaana ne jëru ko de nit nit dafa war di sóor bu baax a baax xalaat lan mooy avenir am ëllëg voilà mën naa ko wala mënuma ko fii laa toll wala fii laa toll loolu xalaat leen ci bu baax a baax a baax dafa neexuloo wax nag bu ñu waxee ñu ni mooy sunu national waaw bu dee sunu national te ñi ci nekk tey nekk ay leader ñu war a dimbali ndaw ñi ñaata nit a ci géej gi kenn xamu nu mu toll désert baa ngi nii ñaata nit a ci faatu. dafa mel nit ñi duñ fàttaliku loolu noonu te loolu moo ne amaana de ñoom ñëpp suñuy doomi réew lañ ñun ña ngay fo ñu ngay cakkaay ñu ngay mbumbaay moo tax sénégalais yi yeewoogun siècle ba ni yeewoo eggagun ca des na eggagun ca siècle boobu noonu waaye heure buñ ci eggee dañ koy xamandoo yëgandoo waaye adduna baa ngi ñuy raw nag voilà adduna baa ngi ñuy raw bu baax a baax ci côté yëpp nag parce que ñëpp a ngi préparé seeni doomi réew ci informatique voilà ci Euh, application yi ci li nga xam ne ni moo di logiciel yi ci li nga xam ne ni ci la adduna bi di dox mooy technologie nit ñëpp di ci préparer seen i ndaw mais fii du ma ne amut de waaye waaye mën naa ni lu néew la lu néew la moo tax gis nga ko sunu internet baa ngi nii lu ne nga ciy gis lu ne voilà kenn ku ci nekk ni ci soobo loolu yëpp dañ ko war a xalaat voilà kon nag bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax ni li ngeen di def nii a ah, man da wax dëgg yàlla fi ma taxawee moom fi laay taxaw rek bala maa xam ni yéen ay leader ngeen yéen ay influenceur ngeen am ngeen xaalis taxawal leen ay entreprise xale yi topp seen ginnaaw di leen bëgge ñu mën a am ci lu nu jàpp fii bari na ci ñoo xam ne ni buñ fa jógee duñu am sax lu ñu reeree voilà duñu am lu ñu ndekkee ñoom nag danañ reer bu suur voilà ki toog ci seeni saal lépp di leen upp lu ñu commande mu ñëw parce que am nañ ko am nañ xaalis ñun ñuy nelaw rek voilà <laughs> yewoo gunde wala ñuy yeewu dëgg dëgg dëgg dañuy bokk ci àdduna bi voilà am na ñoo xam tëluñu lii chaque jour gudde ak bëccëg ñu ngi xool satellite bi lan lañ ci mën a liggéey ñi ngi xool ay oto yi nan lañ mën a defare oto ñi ngi xool nan lañ mën a defare ay portable ñu ngi xool nan lañ mën a créer yooyu nga xam ne nii day doxal àdduna bi te foofu la àdduna bi jëm waaye ñun lan lañu am fecc voilà ay làmbu non vraiment Sénégal malheureusement yàlla nañu yàlla dimbali voilà yàlla nañu yàlla dimbali voilà waaye xam naa ne ah siècle ba ñuy yeewoo daal eggagun ci moom xam naa ne des na de waaw moo tax liñ naan tubaab yi raw nañ ñu baree baree baree cinquante ans tubaab yi raw nañ ñu ko voilà nga xam ne ñoom dañoo teel xam bu baax a baax a baax àdduna bi ni muy doxe ñu teel a programmer seeni ndaw ñu jëm ci loolu voilà xam nga loolu kan mat na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bu ñu fowee suñu bopp àdduna xel ak xalaat la fo mënta ñàkk de mais bala ngay fooy day fekk voilà lu ci ëpp ci réew mi jóge ci ndóol lu ci ëpp ci réew mi bu na añee reer bu ñu réeree ndékki poos yi fees boo wooteem foo dina neex lool waaye jamono bii ñu toll nii nit ñi ba léegi xamagun dëggi dëggi dëggi lan moo xew voilà Sénégal moom tegal leen coow rek ñu fàtte lépp voilà boo leen tegalee coow moom fàtte nañ lépp coow nag lan la mooy làmb ji lool wala Sénégal